mbokki Gédé li ngeen am da ngeen koo war a xam mooy lan fii ñi wër Mouhamed Cissé du parti politique moo tax ñu ànd ak moom dañoo ànd ak Mouhamed Cissé parce que dañoo xam ni Mouhamed Cissé bu demee assemblée nationale Gédé marché bii dana nekk beneen marché Gédé dina am yoon jigéen ñi dinañ am xëy xale yi dinañ am xëy Touba dina am beneen taxawaay buñ mën a wax. ñun dañoo yàgg ci politique di wax nañ def ndaw ci liste yi yéen ngeen am chance ñu def ab xale ci liste mu dëkk biir Guédé Mohamed Cissé li tax man personnellement ma ànd ak moom ci jikkoom ak ci jëfam dafa am jigéen joo xam ni damay bañ a wax turam boo xam ni dafa am seex ñaari seex borom këram wàññeeku ñu téye xale yi hôpital Mohamed Cissé bi mu ko déggee xamuma jël xale bi juróom benn weer meew mi nga xam ne moom la xale yi di nàmp kooku jàpp naa ne bu nekkee député nekkal na député jigéen ñi yéen nag bu leen xool Macky Sall bu leen xool sa Seck bu leen xool Massamba ndax it Touba yàgg nañ am ay député mais député yi yéen amaluñ leen benn njariñ Mohamed Cissé fexe leen corniche bii ngeen dëkk ngeen gañe ko cent pour cent bismillaahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi euh, sant suñu yaakaar Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul di sant suma sëriñ sëriñ Moustapha Saliou Mbacké di ñaan yàlla mu yàggal ko suñu kanam ba li mu bëgg a liggéeyal maamam yépp mu liggéey ko di wax asalaamaaleykum waa Guédé di wax asalaamaaleykum sama dëkkandoo yi di leen baalu àq di jéggulu di sukk di raam seen kanam jéggulu ndax toogaay bi yàgg na waaye nag fi ma nekkoon kilifa moo ma fa teewoon te ñépp xam nañ ni yoonu murit ci ndigal rek lañuy dox te bu la kilifa nee toogal xaar ma moom ak lu mu metti metti da ngay toog rek xaar ko loolu moo ma teewoon waaye su ma sañoon jataay bii yàggaay bi du am waaye li muy yàgg yàgg tamit bi ma ñëwee xam naa ni ñi toog fii muy góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi ñii ay gor lañ ndax gor mooy di def bu mettee mu toog xaar ca dafa mel ni dafa nar a baax ndax ni mu deme nii am nga loo yéen looleen ma won man maa ci des di xamal jigéen ñi di xamal ndaw ñi muy ASC yi Mouhamed Cissé seen Mouhamed Cissé la ca li ñu yàlla natoo ñu dugg ci politique mooy dañu juddoo ci gox bu nga xamante ni li fiy dox neexuñu ca dañu bëgg mu soppeeku comme ni ko suma frère waxee ay député yàgg nañ fee am mais ci rusloo ñu rek lañu dëkk ca bi ñu tollee ci jàng jàng nañ bi ñu tollee ci liggéey liggéey nañ kon li ci des mooy ñu ñëw investir fi ñu dëkk ca xam ne dañ ci am part de responsabilité bu nga xam ne buñ ko deful suñu doom buñ ñëwee suba dinañu ñu yedd ca bëgguñu ko di wax jigéen ñi lii ñu jëm muy élection législative yi ñi fi teew ak ñi fi teewut ñiy dem yóbbaale suñu yóbbante dañ leen di ñaan lii ñu jëm bu ci kenn xool ni président Macky Sall ni président Idrissa Seck Mouhamed Cissé Mouhamed Cissé Touba la Mouhamed Cissé Mouhamed Cissé Guédé la ca man ku ma xam-xam ni nit ak ku mu man di doon mun ma dugal ci lu neexul yàlla mun loo ma tax wax lu nga xamante ni sama diine àndu ci mun ma tax a wax lu nga xamante ni dañ ma ci xas wala ñu di ma ci yàdd kon ngeen xam ni fépp fu ma taxaw doo leen fa rus man ci yooyu tànk laa tege président Macky Sall nag dëgg-dëgg man amoon naa ci gis-gis waaye sama gis-gis sance na ndax nit boo amee kenn ku dul koo yaakaar muy sëñ Mountakha ñu dégg li mu ci wax dëgg-dëgg war nañoo am yeneen bët yuñ ko xoolaatee ndaxte taalibe moom lenn rekk lay xool lu sëriñam bëgg te sëriñ Mountakha moo ne ñu jàkk ni ñu li ko président Macky Sall lebal lott na ci fay ko ca sëñ Touba jëm. sëñ Abdoulaat mu baax ma suñ yaakaar nag dafa am lu mu waxoon dani sëñ Touba ku ko lebal murid ya la war a fay kon nañ leen xam ne am nañ sas wuñ war a bay bu leen déglu yàqkat yi bu leen déglu yàqkat yi man génn naa dox naa xam naa kuy liggéey xam naa ko liggéeyul loolu dama leen koy ñaan fu ngeen jëm ngeen yóbbaale ko ñun waa Guédé nag fi ndam li di commencé mooy fii ñu dëkk di Guédé muy rokat bii ñuy voté ñu fexe ba bu ñu eggee ci yëf ya ñu gañe ko gañe bu leer nañ doogo xëcc jëmi feneen ndax bay ci sawewu tànk yéen jigéen ñi nag am na ay responsable yu nekk ci suñ biir am na lu ñu waxtaanee muy lu jëm ci ay formation ñun dinañ ko financer ci suñ propre moyen jàppale leen ci accompagner leen ci ndaxte dañu wax ni rëbb nit ki au lieu que ngay rëbbi di ko may da koy jàngal ni ñuy rëbbee nga xam ni day liggéey def ci boppam mu xam ni lii moo ko moom. lu jëm ci ASC yi pare nañ pour accompagner leen ci seen i activité di leen wax ni ku gis Mbappé mais bërki dem mu nga xamante ni daanaka seconde bu ne ay millions lay fayeeku gëm boppam moo ko fa yóbbee kon gëm leen seen bopp nit ku gëm boppam dara jomb ko. wut leen seen ngërëmul ñaari waajur bu loolu jàllee li ci des mooy gëm sa bopp ndax man ñi toog ci jataay bi am na ñu ma xam ñoo xam ne xam nañ ñi maak ñoom ñoo màggandoo xam nañ suma jaar-jaar lépp lu gone gu nekk di dëkk Touba di def def naa ko dawal naa saret bi liggéey li jotee liggéey naa jànge naa kër sëñ Saliou laa jànge ba wàcc sëñ am samu sëñ Abdoulaye ma doon jàngal kon ku ne xam na ni ab taalibe moom surtout bool bool gëm boppam rek ndax boo demee Ndakaaru la fa baax lépp bool bool yeeku moom loolu dañoo cee war a feer fexe nag ba suñu département bi ñu téel ko suñu bopp moom ko ba kuy falooti boo ñëwee fii xam ne fii dëkku Serigne Touba la bu loolu jàllee di leen wax ni ku ne xam na ni dëkk bi ab ragal yeewoowu fi fii ay borom fit ñoo fi nekk ay borom yi jom fan yi nag dégg nañ benn waay boo xamante ni chaque jour bu ñuy wax Ousmane Sonko dama koy wax nag sama xarit la du ko nëbbu mais lu muy def nii daf ko war a bàyyi nit ñi bu amee luñ la rusé da ngay xam sa bopp moom du kenn du lenn. ba saa bu jógee rek woote mortel combat mortel combat booy kaay leen ñu dee ñun dañu bëgg a dund liggéeyal Serigne tubaa jaamu yàlla parewul pour dee. taal dëkk bi léegi bu buñ ko taalee pour lan dëkk yi tàkkoon yëpp ba léegi ma ngay sax ba mu ba mu fayet ma ngay saxaar ba léegi fayagul léegi mu wooñu ci taal dëkk bi pour lan la. élection 2019 bi ñu toog kër président Idrissa Seck muy woote pour ñu génn ci mbedd mi maa ngi taxaw man li ma gisoon rek mooy dem ci biti xeex Idrissa Seck dafa geestu yam ci man ni ma ku la wax ni yow boo génnee yow ak Ablaye Seck doomam mu ne ma ku leen ni yéen ñaar ñi du yéenee njëkk ñàkk seen bakkan am réew ku ko bëgg a defar doo ko yàq. loolu dafa am solo ba tax na lim leen di woo bu leen ko wuyu surtout yéen ndaw ji yeewu leen ci xam ni nit ki li koy jariñ liggéey moo koy may waaye kut ko kut damaa bëgg a jël réew mi bu ma ci mënta jot dama koy taal. mais loolu moom yëfi yëfi goreedi ak ñàkki teggin ak ñàkk a warmaal mag ñi mënu ko weesu fii la ñëw sëñ Mountakha am lu mu ko wax ba sëñ Mountakha di daata daaneel mënu ko déet ñi ñi faatu ñëpp ay murid lañ loolu mooy lan. mooy li ngay wax dégluwuma ci dara sa waa kër faatu mais waa Casamance kenn faatuwu ci moom nag mënut a bàyyi ndeyam ak bàyyam fële ca Casamance ñu ne xat gi lay ne mënu nañ leen taal Ndakaaru mais loolu ku am xel di xalaat sax xam ne lii xel nangu ko te pourtant ñoom ñi koy jiite ñëpp kenn ku ci nekk yaa nga làq sa njaboot fu nga xamante ni yàq eggu fa boo leen xoolee ci réseaux sociaux di ngeen gis ñoo xam ne ñàkk nañ seen i bëñ te ko yóbbee ñi ñàkk seen i tànk ñàkk seen i loxo gis ngeen ab alkaati boo xamante ni ci la ñàkkee loxoom ci lan yaa ma tëddeeg tëddeewuma la mais loolu loolu loolu gàcce la dafa ruslu bu loolu jàllee nag mu am benn waay bu ñuy wax Abdou Abdou Doli ndax ñun dañuy dañuy dañuy màggal sant wi di màggal baayam muy sëñ Baara Doli ba duñ ci egg moom Abdou Doli la ñuy wax nga xam ne c'est un fils de pute bu nga xamante ni tekkiwul dara bërki démb la président Macky Sall recevoir ay seetu sëñ Touba ca moom nag nee na bépp jigéen bu dugg ci pale bi wax ci wax ju ñàkki teggin mais dañu wax ne nag doom ja ndey ja ñu ko wax mu nga mer sa ndeye baaxut dama yaakaar ni xëy na loolu muy wax ci ndeyam la ko gisee ba tax moom mu taxaw naan ku dugg ci pale bi Macky di wax ci wax ju ñàkki teggin joo xamante ni ca Macky Sall dafa am njaboot comme ñëpp ca lépp loo bëggul ku ko wax sa yaay waroo ko wax yaay jàmbur loo bëggul ku ko wax sa bàyyi waroo ko wax baay jàmbur moom nag saa bu xëyee ba ngoon jël di rusloo waa Touba lay def barki dem moo Njaay la taxaw fii di attaqué sëñ Muntaxa ñëpp gis nañ bi corona bi nee dugg see ñuy coow naan am naag amul sëñ Muntaxa woote Poroxaan mu ne sëñ Muntaxa li mu def tegu ko fen ñëpp a ko fekkee waa mais sëñ bi nit ku mel noonu xam nga nag dañuy wax ne dof na leen ñaar boole na la jur mbaa nga jur ko boo ko juree am nga problème ndax du ngeen tàggoo bu la juree am nga problème ndax du ngeen tàggoo mais lu dul ñaar loolu waroo seq ak moom lenn dof nag mooy ki soli yéreem nekk ci biir nit ñi c'est ça bu waxee ñëpp dar seen gémmiñ ni ko sëñ Sambay di waxee dafa am loo xam ni ñooñu dañoo feebar mais dof day ci biir nit ñi di solu te saa bu waxee ñëpp tiit kooku mooy Abdou yi di leen wax ni gédé gi moom ku ko fi gis tojal gatam fii ci kene ku fi gis Abdou Doli di fa taxawaalu xottil gatam ba ci noppam ndax ñun lépp loo am àndut ak teggin nekkuñu ci. warmaal jigéen war warmaal jigéen ñi mais sëñ bi wax ju ñaaw joo xamante ni ñaata ñaata jigéen la Macky Sall di recevoir ca mu ni képp ku recevoir Macky Sall euh, ku Macky Sall recevoir ngay jigéen rek am na lu la def. ñu ngi lay ñam ci suuf. waaw moom xëy na loolu yaay ma ko xam jàngal ko ko moo tax mu di ko def dama ni. ju ñaaw niñ koy waxee ñëpp ko man danañ am yar ak nag waaye nag am na foo xam ne ku ñu fa woo ñu wuyu la fo di leen wax ni à part de aujourd'hui ñun wàcc nañ ci terrain bi man nag bi ma ñëwee ba léegi ñu bare ngi may woo invité nañ ma ci terrain fu ne mën leen sama kàddu du ma ko yëkkati fu dul gedee lu may wax gënee laa koy commencé bu ma ko waxee ba pare nag feneen fu ma war a waxee dinaa ko waxee mais di leen wax ni daal. sëñ Mountakha da ko contre. lépp lu sëñ Mountakha samp saa bu xëyee ba ngoon jot moom da ko contre ndax président Macky Sall nag ñun dafa am lu ci sëñ Mountakha wax. yéen a dégg alaaji mbàkk yu fay mi nga xamante ni gis nga dëgg yàllaa ko moom mbàkk yu fay képp kuy murit ameel nga ko ngërëm masaalikul jinaan ñëpp xam nañ taxawaay ba mu ci am. ku àttana yëkkati li mu yëkkati di ko def ci jumaa ji amoo lenn lenn loo koy wax lu dul wax ju ñaaw wax ju ñàkki teggin mais sëñ bi kii mooy bu fi daje woon ak sëñ Tuubaa bu wootee da koy weddi ndax ki fi sëñ Tuubaa teg bu dee bu waxee nga weddi ko boo fi daje woon ak sëñ Tuubaa bu waxee nga weddi ko mhm. kooku mooy Abdou Doli di leen wax baayam ku baax la sëñ Baara Doli nekk na fi député politique ba bàyyi kenn déggu ko ci lu ñaaw mu am fi ay magam muy Modou Bara Doli ak sëñ Cheikh Mbacke Bara Doli kenn déggu leen ci lu ñaaw sëñ Cheikh Bara Doli bu taxawee ensemble ñëpp dañ koy naw kenn du ko gis ci lu ñàkk fayda kenn du ko gis ci lu ñàkk teggin mais moom nag mu mel ni benn sëb ci cin kenn xamul fu mu bokk moom daal mbiram jar naa seetaat très franchement man de man daal kooku dama sa bëgg dama bëggatul sax wax ci moom ndax du nitu dara waaw yéen mbooloo mi nag maa ngi jégaluwaat di jégaluwaat di jégaluwaat yàggaay bi waaye di leen wax ni pare nañ pour ñu ànd liggéey lépp luy ngeen xamante ni pare ngeen pour def ko man ubbi naa samay buntu ñëpp sama kër bañ na ko ba amul gardien képp ku ma soxla boo ma fekkee sama kër lépp lu man doon dañ koy waxtaanee sama téléphone duma ko fay ku ma woo ma wuyu la man seen doom laa seen mag laa seen rakk laa seen xarit laa di leen wax nag salaire u député man taxuma politique ndaxte dama wax lu leer ni leen bu ñu yàlla mayee li ñuy wut ñu jot ci salaire boobu dama koy def juróomi xaaj barki sëñ Touba bi ci njëkk jigéen ñee moom beneen bi ci topp dañuy dem ci benn pharmacie teg ko fa képp ku fa ñëw boo amee ordonnance bu dee junni juróomi téeméeri ngay joxe juróomi téeméeri ñu génne ko ci loolu. beneen bi ci des sama waa parti yi nga xamante ni ñoom laa àndal ca jiital ma ci lii ñoom laa koy delloo ndax parti bu ne dafa am lu ko war beneen bi ci des ASC e yi ñoo ko moom man. foofu laa nekk ci loolu laa bëgg a dox ci laa woo ñëpp barke Serigne tubaa xaalis dugaluma ci politique di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal di wax jigéen ñi ngeen gën a jàpp seen borom kër yi di wax xale yu góor yi ngeen gën a jàpp seen yaay yi parce que képp ko am sa ngërëmul ndey wallaay la xasim loo bëgg di nga ci jot di leen sant di leen gërëm jërë ngeen jëf